lay dem tok légui pour commencer dañuy euh, jox cadre bi monseigneur Dia mu sànni ñaan mbooloo turu bi ak doom ji ak xel mu ndimal ci loxo mi bind ak suuf lañu gëm ñaan yàlla parce que yàlla mooy maye yàlla itam moo ñuy uh, ni ñu ko waxee ci tubaab guidé moo ñuy leeral te mooy def liggéeyu nit mën a am njëriñ mën a meññ loolu moo tax ñu bëgg denk dénk yàlla sunu borom mi bind asamaan ak suuf mi bind bruker mi toog ndax barkel liggéeyam projet bi mu mouvement pour euh, union pour le développement de la commune de Fandé. Nous tekki na ñu booloo xel yi xol yi pas-pas yi mën-mën yi commune unité unité li yàlla bëgg ñepp andando ay mepp ñu ay doomi aadama lañu mom moo ñu bind moo ñu sakk te yalla dafa bëgg ñu andano ñu nekk ben di liggéey suuf si ni mu ko bëgge ndax eggali li nga xamne yalla tambal na ko ñu dégg ko sunu borom bi suñu bay bi ci asman na sa tour sell na sa ngor dik lo bëgg na am ci suuf naka ci asman maa nu sunu bu nekk baal na suñu tooñ naka ñu baale naa ñu tooñ tey bu ñu bàyyi taabu ci bolis waa mu sànnu yàlla sunu borom ñu ngi la dénk bés bi lee barkeel la ñi fi teew maa ñu nekk fii ci jàmm ak ci teranga ñu ngi la ko dagaan yow mu di dund tey ba ca abada jër ngeen jëf jox kàddu gi euh, monsieur Babacar

inna anzalnaahu ñett ñu tëjee ko salaatu ala nabi bu waay ñam man incha allah rabbi إني من الذنب اللهم إني في طلوبك من الغفران ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفينا عذاب النار لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والقاتل لما سبق نصرك والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وقدره حمد العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام والسلام والسلام في الجنة والسلام والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Euh, commencé dugg carrément ci présentation mouvement bi lancement bi donc dinañu jox parole bi monsieur Bricaire Ndione moom mooy coordinateur bi moom la ñuy jox kàddu gi fi mu nekk ya fulak te awane Merci. Merci. Merci. Cher public, nous vous invitons à observer une minute de silence en mémoire de tous les jeunes de la commune de Fandène qui nous ont quittés. Et nous profitons de cette occasion pour présenter nos sincères condoléances au maire de la commune de Fandène suite au rappel à Dieu de sa fille. Dieu les accueille dans son paradis. Messieurs les chefs de village, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Messieurs les représentants des ONG, de la maison familiale rurale, de Givon Project et de la société civile. Son Excellence, Monseigneur Yacinthe, chers prêtres, chers imams, Mesdames et Messieurs les journalistes, chers invités, chers membres et sympathisants d'ici et de la diaspora. La jeunesse constitue l'avenir d'un pays, dit l'adage. Mais nous, jeunesse de la commune de Fandène, disons totalement le contraire. La jeunesse est le présent d'un pays. C'est pourquoi nous, jeunesse de la commune de Fandène, conscientes, sommes érigées en acteurs de développement pour participer activement au développement économique et social de notre chère commune. Chers invités, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi ici à Fandenchati, chef-lieu de la commune, revêt un intérêt particulier car il s'agit de lancer officiellement le mouvement citoyen dénommé Union pour le développement de la commune de Fanden. Au Sénégal, les statistiques ont montré que les jeunes représentent plus de 50% de la population. Fort de ce constat, nous jeunes de la commune de Fandène, nous sommes posés les questions suivantes. Est-ce qu'un pays pourrait accéder au développement sans l'implication de sa jeunesse Devons-nous, les jeunes, attendre demain pour agir eh bien non, car nos valeurs culturelles nous interdisent de remettre à demain ce que l'on peut faire aujourd'hui. C'est en réponse que ce mouvement a été créé le 31 octobre 2020 par des jeunes conscients de la mission à accomplir par tous jeunes sur le plan du développement de la commune de Fandène est désireux de s'impliquer aux prises de décision dans le processus de développement de la dite commune. L'écrivain Franz Fanon nous enseignait dans son ouvrage Les damnés de la terre que chaque génération doit, dans une relative opacité, trouver sa mission, la remplir ou la trahir oui, chers Fandénois, Fandénoises, nous, jeunesse de la commune de Fandène, voulons bien remplir la nôtre à travers le mouvement Union pour le développement de la commune de Fandène en poursuivant les objectifs suivants. Nous voulons ainsi impulser et coordonner la participation des membres du mouvement, particulièrement de la jeunesse, à des actions de développement communautaire d'intérêt local. Assurer la représentation des membres du mouvement, surtout des jeunes, dans les instances de décision de la commune pour pouvoir faire valoir nos idées, porter des projets de jeunesse, défendre les intérêts de la population, surtout sur le plan foncier et notamment ceux de la jeunesse pour l'attribution de parcelles à usage d'habitation. Former les membres du mouvement en politique pour promouvoir leur leadership, participer à la formation civique, technique et professionnelle des jeunes et des femmes. Entretenir chez les jeunes un esprit de protection de l'environnement et de la nature, développer la santé chez la population, lutter contre les IST-SIDA, la toxicomanie, la pandémie à coronavirus et protéger aussi la petite enfance. Encourager par ces initiatives, des relations de fraternité, de compréhension mutuelle et de coopération entre les jeunes de la commune de Fandène promouvoir l'équité et l'égalité des genres, cultiver chez les jeunes la citoyenneté, la laïcité et l'appartenance à une seule commune, sensibiliser les jeunes sur les risques de l'immigration clandestine, œuvrer pour le développement social, économique, culturel et sportif de la commune, et enfin accompagner la population et leurs organisations afin de développer leurs capacités économiques. Chère population de la commune de Fondaine, nous sommes bien conscients que l'atteinte de nos objectifs ne sera possible que si le mouvement Union pour le développement de la commune de Fondaine repose sur les principes du respect de l'autre, de l'humilité et de l'engagement de chacun. L'idéologie politique du mouvement a été définie suivant le respect des valeurs morales, religieuses et culturelles du Sénégal en bannissant les injures, le dénigrement, la diffamation et certaines critiques souvent subjectives. Donc une politique saine, une politique d'action. C'est dans ce sens qu'on note dans la commune de Fandène, malgré son potentiel, de nombreux défis à relever. Sur le plan hydraulique, agricole et élevage, nous dénonçons l'insuffisance d'ouvrages hydrauliques adaptés et performants, entraînant une pénurie d'eau potable et l'assèchement des vallées dans les, dont les performants dont les conséquences sont le chômage chronique et l'exode rural massif chez les jeunes. Sur le plan de la santé, soulignons l'insuffisance des infrastructures sanitaires et de personnel qualifié, les difficultés d'évacuation des malades et la qualité de prestations peu satisfaisante des mutuelles de santé. Sur le plan de l'environnement, et exploitation forestière. La commune de Fandène est menacée par une déforestation progressive. Dans le secteur de la microfinance locale, nos braves mamans souffrent de l'inaccessibilité au crédit et du taux d'intérêt élevé. Dans le secteur de l'éducation et de la formation, malgré les efforts consentis les établissements scolaires restent dépourvus d'équipements, surtout sur la question d'une bibliothèque communale et d'un laboratoire de sciences. J'interpelle par la même occasion les collègues enseignants sur la non-organisation des cours de vacances ici dans la commune de Fandène. Et je les sollicite de les organiser et surtout gratuitement dans le secteur, dans le secteur du commerce, l'absence de marché moderne et hebdomadaire sont intolérables dans une aussi grande commune que Fandine. Enfin, sur le plan sécuritaire, les villageois ne cessent de crier au secours jour après jour à cause des multiples vols de bétail et des rues peu éclairées. Chers auditoires, nous trouvons aujourd'hui le lieu et le moment de rendre un vibrant hommage aux hommes politiques pionniers qui ont défriché avec abnégation et obligeance le champ politique ici dans la commune de Fandène. C'est grâce à leurs multiples actions diverses, concourant au développement économique et social de notre terroir, que nous avons pu hériter d'un fontaine de paix, de solidarité, de justice, bref, de grandes valeurs nous servant de repères et de références. Nous encourageons également les hommes politiques contemporains, ici présents ou non, qui, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés, font de leur mieux pour participer à la cause commune qui est celle de positionner la commune de Fandène sur une bonne trajectoire de développement durable. L'occasion nous est aussi offerte de nous rappeler la définition du terme politique. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau, à travers son livre du contrat social, nous révèle que la politique est immanente à l'homme donc l'expression « je suis apolitique » n'aurait pas sa raison d'être. En outre, dans une définition plus large, plus générale, nous disons que la politique est l'art de gérer la cité. Dès lors, sa mise en pratique dans la commune de Fondaine doit forcément, je répète cette phrase, doit forcément passer par la cohabitation de différentes idéologies politiques C'est dire, en termes simples, que le champ politique est à l'image d'un marché où aucun vendeur n'a le monopole, encore moins l'exclusivité, d'écouler sa marchandise sans concurrence. Ainsi, il incombera à chaque vendeur d'offrir des marchandises de qualité pour attirer et fidéliser sa clientèle. Messieurs les représentants des ONG, de la Maison familiale rurale, de Give One Project et de la société civile, la commune de Fandéen a besoin plus que jamais de vous, car vous avez toujours été à son chevet par vos actions partenariales. Chers Fandénois, Fandénoises, c'est avec optimisme et détermination que nous lançons officiellement aujourd'hui le mouvement citoyen Union pour le développement de la commune de Fandène. Et vous donnons rendez-vous aux prochaines élections locales prévues le 23 janvier 2022 dans une large coalition. Pour cela, nous vous recommandons, surtout aux jeunes, d'aller vous inscrire massivement sur les listes électorales en choisissant Fanden comme lieu de vote. J'insiste encore, parce que quand il s'agit d'appel à manifestation, les jeunes sortent en masse. Mais quand il s'agit d'appel au scrutin, on ne voit pas les jeunes, on ne voit que les vieux. Donc nous vous appelons vraiment à aller vous inscrire sur les listes électorales. Merci de votre aimable attention. leen nuyoo ci seen tur ak santam ma bëggoon gërëm ku nekk ci ci turam ak ci leen gërëm bu baax ci seen teewaay fii ci suñu ndaje bii ñun ndaw commune Fandène ñu woote ndax mën a fësal suñu kuréel te waxtaan ak yéen ci suñuy ay mbëbët que mbokk yi dafa fekk ni ñun ndaw commune dañoo defoon ab taxaw seetlu ci biir taxaw seetlu boobu ñu gis le développement la commune fandin wala boog développement la commune de fu mu mënti toll na ko weesu selon le potentiel c'est-à-dire Fandène fànn boo mënti jël amna ay borom xam-xam yo xamantene paré pare nañu pour joxé sen xel ak sen xalat pour dëkk bi jëm kanam ci biir taxaw seetlu bobu aussi ñu gis ne jeune yi déssé nañu sóobu ci walu politique et forcément il faut qu'on pense à la relève ou bien même à la continuité de ce qui a été commencé par nos vieux Lolo tax ñu ni xëj ci walu développement pour nekk moo ci war a dugal loxoom pour dëkk bi jëm kanam ñun ndaw ñi nag ñu ni ah su boobaa ana suñu wàll ñu toog waxtaan ñu ni dañuy créer mouvement bi ñu lancer tey ndax mën na dugal suñu loxo ci wàllu koom-koom balaa boobu dañoo newoon est-ce que su boobaa dañuy xaar ba ëllëg pour mën a joxe suñu bopp ci suñu commune ci wàllu développement souvent on dit que l'avenir ou bien la jeunesse est l'avenir d'un pays Nous, ndaw commune Fandène on veut déconstruire cet adage pour dire que la jeunesse est le présent d'un pays parce que ñun ndaw le may nañu xam-xam may nañu xel may nañu xalaat may nañu katan donc gëm nga war nañu rester les bras croisés di xaar pour mën a jëf loo xamante ne mën nañu ko commencé tey loolu tax mouvement bi développement moom la ñuy comme ça ñu mën Google seigneur suñu loxo dëkk bi jëm kanam. bu ñu problème yooyu ñu ni ci wàllu ndox mi sur le plan hydraulique agricole et élevage ci wàllu ndox mi. Fandène amul ndox Si il faut comprendre la commune mais nous avons jël suñu en exemple donc tu vois nous Fandène amul on a été patient indulgent aussi toog di Har. ñu ah les sortis. mais dafa fekk ni heure fekk Vous faites bu ngeen ça persiste, ça persiste. Bon, finalement, nous, la population, on est attaqué par la pénurie d'eau. Nous sommes il est temps qu'on trouve ensemble les solutions. Tiwalo agricole ku nekk xam na souf, Fandène ñàkkul suuf foo xamante ne mën nañu ci bëy la ci commune Fandène jeune boo maintenant ne dem immigration clandestine mais il y plus grave pour rural parfois on voit les jeunes qui quittent le village pour aller chercher du travail en ville malheureusement soit ils ne reviennent plus soit ce n'est à Dakar leur situation leur la manière de vivre à Dakar finalement n'est pas la meilleure de telle sorte que pour nous fini déjà fait yenn saay du am lu ñuy passé pour ñëw saay du am lu ñuy parce que nous, nous fay nous nous. seen bëgg-bëgg jeunes yooyu bu ñu desoon fii ci commune bi Nous, na on pourrait ensemble faire avec eux et pour eux daaw l'année passée il avait plus

lii de daf ñuy fàttale suñu temps wu rafetna mané na ma ne ah bu fekkente réflexion bi foofu la yem ça veut dire que des na. je pense que on dit souvent que l'Afrique est le continent le plus riche effectivement parce que ndox moomu dex boobu di jaar fi chaque année xana war nañu xalat jëm ko téye dëkk fu mu jaar dëkk bu mu jaar ci Fandène ñu implanter fa ay dik comme ça nord bu joté en contre-saison les jeunes puissent rester au village puissent rester au village On lieu que ñuy risque di dem Jakarta On lieu que aussi ñuy wuti Mbour wala wuti Dakar di loger di voir faire fay loyer ci 000 francs dont un seen c'est noir. Bonne ñu des zones, nord ils auraient pu creuser des séances arroser du piment des légumes et et tout bi des day ci élevage nous comprenons que nous mi a na ñu ngi am mais le système de rétention d'eau ou bien de récupération d'eau c'est vraiment à valoriser Maintenant, c'est pas seulement l'unique solution parce que il y a la SDE qui est à quelques kilomètres d'ici Nous ngi am espérons que on puisse ensemble installer des digues pour donner à la jeunesse une chance de rester au village ñu bàyyi moto jakarta nous ñu exode rural nous sommes finis Nous pour na pas mënuñu fonction publique pas aussi mënuñu que ci privé ci toog ci bureau mais la terre là, on dit que ça ne ment pas. Il suffit seulement de chercher les moyens. Il y a le bon travail, nous disons, nous retenir pour mener la contre-saison, comme nous le Tu vois, nous santé. Parce que santé, ce n'est pas un domaine à négliger. Fille de Nyongis, la commune Fanden, infrastructure de sanitaire, d'Esna. Nous aussi que Fanden,

toujours ci walu santé man dama seetlu ne Diego. bi warna def jéego Fandène nak mo jiitu ci walu mutuel bref parce que bi président Macky Sall dafa instruire lo xamantene mutuel universel universel. mais luñ fa sétlu moy malade bi bu feebaree.

environnement xëy na am benn flanc bu ñuy négliger mooy côté salubrité mbalit mi man de j'ai pris l'engagement en 2013 ma xalaatoon ci projet mbalit ramassage d'ordures d'ordures des ordures ménagères ma bind projet ba bëgg ku ma ci jàppale booba ma xalaat xalaat sama xel bi dem ci ministre Augustin Tine madame dem soumettre ko projet ba expliquer ko il a apprécié mon financement maa ko au passage. may gërëm aussi ñi ma ci liggéeyal ma monsieur Théophile ma ngi aussi sama charité monsieur falay ak sama yaay yo xamantene di def ci euh, yi di jaar di projet Bobu, ma de ne c'est à vocation communale donc dafa fekk ne commencer mais li ma polariser toute la commune alors commune c'était une communauté rurale il y avait pas encore la transition bi ma defee projet boobu aussi wa maison familiale dolli ma ay charrette ba tey jii nii maa ngi huit quartiers donc euh, maa ngi leen di remercier ci euh, seen euh, collaboration ci wàllu financement suñu yaay day dañuy wax rek mais son nañu yenn saa yi dañuy toog kër ga croiser les bras parce que amuñu lu ñuy tëxee tëyee loxo dañuy obligé di leb seen biir wante leb boobu mënoo leb lu bëri donc fan nga mën a amee financement boobu takku mooy uniquement ci banque yi mais malheureusement peut-être l'accès ou bien l'accessibilité au crédit mën na jafe parce que banque yi yenn saa yi dañu dañu lebal n'importe qui mais aussi intérêt bi moo bëri parce que da ngay leb nga def sa commerce nga banque finalement li ngay fay banque li donc faw ñu vraiment domaine boobu ci éducation santé mais je pense que éducation ci la war amulee population bu jàng du mën nous sommes dans un monde de concurrence nous sommes dans un monde d'excellence donc il faut que jàng bi ñu gën ko xoolaat bu baax mo bëggoon wax ci côté bobu bu ñu démé lycée de Fandène amul bibliothèque communale té ma ngi xalaat ci ño xamante dañuy def examen wara def recherche finalement amuñu fu ñuy defee recherche et marie aussi lycée au Fandène wala yeneen école Amoul, laboratoire de sciences. Et Té nous sommes dans un monde de sciences. C'est mon portable Les ay scientifique ont fait L'anglais est nag parce que ça accompagne les sciences ça permet de comprendre les sciences mais science nous nous avons négligées, parce que le loo leen fini surtout le coronavirus, les scientifiques, scientifique ont ñoo pour donc laboratoire de science dafa war a am fii nii ci commune Fandène comme ni ma ko waxee aussi sànq sama collègue enseignant yi waa dëkk man Fandène moo ma may lépp ma dem ndakaar wuti ci xam-xam ma ñëw tey ma gis xale yi di traîner fii nii xalaatuma leen wax wax leen seen papa ak seen yaay ñu inscrire leen cours de vacances xalaatuma ko moi je préfère rendre à Fandène la monnaie maanaam organiser des cours de vacances gratuitement te bëgg naa sama sama mbokk enseignant yi ñu xalaat ci loolu il faut cours de vacances commencer mat. xale yi dañuy tere te bu fekkente ne on veut un niveau élevé il faut forcément qu'on se donne on donne on donne soi mais bu ñu jiital ay xaalis wala ñak temps il faut ñu xolat naka lañuy dimbalé suñu rakay ci walu cours de vacances fépp foo mënti dem éducation lañuy ñuy éducation lañuy ñuy mënu mo wax éducation 100% pour sans pour autant parler de formation parce que ma ngi gis euh amna doomu Fandène yoo xamante ne ils ont osé délocaliser leur entreprise d'ailleurs pour nous implanter au de fandine pour mener a population C'est un âge ou alors participer participer formation professionnelle des jeunes Nous avons implanté un peu partout pour participer à la formation sans que Mario ne wax ci mënuma ñàkk wax ci ñun suñu mouvement bi union pour le développement de la commune de Fandène lu ñu defal étudiants yi ren ci wàllu université avons amoon ay organisme boursier partenaire ñu toog ak Nous avons ñu ne ah ñun dey benn village de deux communes. Nous avons amoon ay étudiants yo xam bu ñu ñëwé Dakar après yeen saay du am pour mëna fay seen formation parce que seen papa yi sen loxo jotul sen ginaaw ñu may ñu cinq bourses donc année bi ni may nañu may nañu ay étudiants commune Fandène cinq bourses yo xamantene ñu ngi def formation c'est l'année prochaine CIPRES on va réitérer cela en dans le secteur du commerce madame ci walu njënd ak marché amul Fandène

tey jii nii bu ma naroon tabax heureusement que am na ñoo xamante ne bu ma jëlee exemple Fandène am na ñoo xamante ne am nañu fii nii ay kénkayri su boobaa mën naa dem ci ñoom jox leen sama xaalis ñu jox ma matériel bi ci war siman et cetera yàggul nag maa ngi leen di encouragé ah, ci wàllu boobu aussi ma pour que commerce bi dox fii Fandène il faut que nit ñi nangoo investir fii Fandène Fandène amul boulangerie bu dee sama doomu nijaay bu ñu naree lekk ci ngoon il faut que ñu taal oto wala Jakarta dem jëli ci mbuuru Thiès Fandène amul pharmacie bu dee da nga am malade il faut nga dem Thiès jënd fa kii garab la ce sont des entreprises privées mais c'est à encourager c'est à accompagner maa ngi fàttaliku Abdoulaye Wad, ba mu jël ba il est parti en France dire aux Sénégalais qui s'étaient établis là-bas de rentrer investir ici donc il faut waa Fandé Nango investir fini nii ñàkkuñu ay cadre ñàkkuñu ay borom xam-xam ci bépp wàll bi nga mën a jël ci wàllu sécurité ah population mom yenn say les gens metti ci ñom nga yar si jur bu pare nga jéki jéki nga xey ñu ni nañ ko ñu ngi am ci gendarmerie bi mu mais il faut que ñu gën ko éclairer d'accord la route qui mène à Thiès bien éclairée mais ci yi na da ngay gis lampe nga 500 mètres dox gis lampe que lañu waron privilégier installer les lampes dans les rues nit ñi ñuy dox en toute sécurité Tu vois le sport Tu vois le sport gëm naa ni euh, amaguñu stade am nañu terrain mais terrain bi pour football rek la bu football amul dara te sport du football kese normalement jigéen yi war nañ ci gis seen bopp te aujourd'hui sport de masse mo war quand tu dis sport du football kese ni comme ni ma ko mais il faut aussi l'athlétisme, basketball handball etc. parce que je pense que les Sadio Mané def sen deuk bëgg nañ ko fi Fandène ñu am international bo xamante dina dem. football ji Europe wala basket ji Europe mu ñëw maye fii lycée maye fi église wala maye fi mosquée wala maye fii loo xamante ne développement la. yaa ngi noonu ñëpp ci war a dugal seen loxo ñu ne su boobaa pour mën a régler problème yooyu wala ñun ndaw ñi pour ñu mën a bokk ci ñi régler problème yooyu il faut que ñun ñu def le tout ba fekkee fu ñu koy waxtaanee. fu ñuy waxtaanee fu ñuy ngasee décision ya foofu fan la moy conseil municipal bu té te da fay jaar ci élection yi di ñëw ñun mouvement bi ñu dem élection de préférence en coalition comme ça ñun ndaw ñi ñu mëna am ay représentants ci conseil municipal bu mëna mën suñu bop suñu doléance ñun ndaw ñi am nañ doléance parce que

Thiès la ville de Chess, moo avancer. avancé parce que dañoo dëkk ba tey Jini, nii amatuñu Souf, ñu ngi avancé ci commune Fandène et ça c'est inévitable mais su Boba, je pense que nous revient de devoir d'anticiper de war anticiper ci lolo en quoi faisant wutal population bi avez yi population, leen ay kayit ci seen tool on doit les sécuriser

suñu si su mënul il faut penser à chercher des titres même précaires aux propriétaires terriens comme ça vous suba vous jëlé sa suuf au moins nga en contrepartie ça c'est fondamental

Si vous aussi ñoo ministre aussi mais est-ce que vous la un président un président de la République du Sénégal ici de la commune de Fandé. pourquoi pas ah samay mbokk yi ma gëm nañu ñun ndaw ñi pour ñu àgg ci suñu objectif yu jëm dañoo war a am politique boo xamante ne dañ ko bëgg a basé wu ci suñu yar ci kër ya basé ko aussi ci suñu yar ci suñu religion chrétienne et musulmane ndaxte ku biibal ba xam nga ne il y a un des, des commandements qui dit que tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. vous euh, le mensonge est le plus grand péché donc religion l'ennemi, l'ennemi, politique te gëm nañu bu ñu sukkandikoo ci loolu nañu àgg fu ñu jëm loo tax ma ni puisque développement la ñuy woote politique d'injure saagee xasante ñaawalante yàq der nit bokkuñ ci développement la ñu Marie ngi aussi suñu homme politique responsable politique yii fi teew tay, ak ci fi te di leen xamal ne ñu ngi leen di encourager ci li ñu sumb pour mën a jëmale ci te di leen xamal ne la politique du don lu bon du lu ce n'est rien d'autre ba dee ci apprendre à gérer les affaires de la cité la cité notre du dara mooy fi nga dëkk naka def ba mën a méthodiquement ngeen Je fi ngeen jëm ma bëggoon wax ci aussi on est dans un dans une démocratie Nous, c'est une démocratie Qui a une liberté d'association Connecte à la liberté de penser Qu'on à la liberté d'agir loolu tax ma développement il faut forcément que nous ayons des débats d'idées contradictoires Qui fait qui qui fait tenir. comme ça nous Joko, trouver consensus c'est pourquoi je dis aujourd'hui que le mouvement Union pour le développement de la commune de Fandine est né à son heure. Parce que nous avons fait un bord. Si le bateau coule, tout le monde coule. Ah, may gërëm aussi suñu partenaires yi partenaire la commune Fandine, nous nga xamante ci ONG la de tout am na ñoo xamantene bëgg nañ ñëw mais à cause ci décès yi ak contretemps taw bi aussi jotu ñëw mais ñu ngi ci xew bi ak ñun. ma gërëm aussi waa Give One Project benn kuréel boo xamantene ne con ñaa moo ko sos pour yëngatu ci affaire entrepreneuriat ak leadership. ma gërëm aussi hmm, waa société waa société civile nous voulons dire que c'est un travail et nous aussi action de développement et de formation pour la jeunesse. nous voulons dire que c'est politiciens politicien, monsieur Raymondine représentant du parti ou bien responsable politique du parti Rémi, fii ci nous voulons dire aussi monsieur Théophile mon moo ou à PASTEF Fille ci seen jotaay bi tey monsieur Biram Badara Badara Badara moom mouvement gëm sa bopp bu Bougane aussi monsieur Jean-Noël John. moom moo grand parti bu ma gërëm aussi koo xamante ne bi mbas mi jotee parce que événement bi war nañ ko amal ci Noël yee passé au mois de décembre mais bi ministre de l' intérieur arrêté mu ne interdiction de rassemblement ñun aussi dañoo ne ah puisque dangaa bëgg a jaar yoon boo xamante ne baax na le ministre en principe s'il interdit ñun aussi dañ ci war a jaar exemple ci loolu noonu on a reporté l'événement. événement ñu ne su boobaa il faut que ñu maye ay masque ay gel ay savon eau de javel ensemble bo xamante daal mën na corona buñ ko jotee nag dañoo dem ci église ya bii Fandène laalan peyku ñu may fa ay masque yu bëre ay gel ay savon eau de javel et cetera ñu dem aussi ci mosquée ya yoo xamante ne am nañu ay représentants ci seen dëkk ñu fa la même chose pour mën a xeex ci je pense que loolu mooy suñu développement bokk participer au développement maa ngi leen di gërëm di mujjee di mujjee di leen ñaax ngeen dem biidu ji ci liste électorale ndaxte bu ñu bu ñu am ay conseillers jeunes il faut ce boobaa ngeen wootal ñu yeen population commune Fandène ñu ngi leen di talal suñu seen loxo loxo ainsi nous vous demandons d'aller vous inscrire massivement et nous vous donnons rendez-vous le 23 janvier 2022 pour nous voter si Fandine. Fandène Que de voter Dakar Thiès nga voter réwmi nga voté pour euh, grand parti nga voté pour euh, Pasteur, wala nga voté pour euh, bougan Gueye gëm sa bopp wala nga voté UDCF su da nga sa carte pour sa carte am il faut que ñepp puissions transférer le lieu de vote nous fanden ñu et su boba ñu am voix qui vont nous permettre d'avoir des conseillers malen di gërëm di leen euh, ñaanal ku mu nekk mën a dellu si ak jaama fu mu jógee merci de votre aimable attention. maa ngi leen nuyu ku ci ne sa tour ak sa centre di jiital ci nuyo bi monseigneur monseigneur comme ni ñu am habitude di ko waat ñu ngi lay jox sa wàccuwaay ñu ngi lay gërëm ci sa teewaay monsieur Bricaire également ñu ngi lay gërëm di la sant. ki sa anganjman. Dèkè nou yon sakadou, sakadou yon rafèdnen. Ap rèw, li mò kòy do kòl. Ap dèk, li mò kòy do kòl. Ap vilaj, li mò kòy do kòl. Dèkè nou yon ba, lingawa. Ap dèk, wò yon yon banyay yon kousyon. Moun gen men ni, yon atlet, gen ak chitis. ñu naan da war a def compétition pour nga am performance il faut nga am ñoo am ne dañu ne rang nga mën a gën a mën a daw pour nga mën a améliorer sa performance mais boo dawee yow kenn doo mën a am performance noonu rek la mel kon opposition il faut mu am ci ab dëkk mu neex mu naqare ñu il faut mu am. dëkk boo dem réew moo dem am na opposition amul benn dëkk walla réew bu amul opposition kon nañu ko nangu du ñu ay ennemi ay adversaire lañu kon dégg nañu baax kàddu yi nga fi wax pour jeunesse man maa ngi lancé jeunesse bi ci li nga ci kaw li nga wax noonu ñu jàppale la ci sa mouvement bi ñoo pour le développement de Fandène pour ñu mën a développer wax nga lépp wax nga marché wax nga ci mbaalum euh, jur gi ñuy sàcc nii loolu moo fi am moo fi ëpp moo tax kenn mënatul point boobu laa gën a jàpp parce que man je suis un éleveur je suis un agriculteur ku ma xam di Fandène xam nga xamee ma ci yar ak béy man ba bii ba ma jëlee retraite ba léegi maa ngi ci biir tool yi mais jur gi kenn ñemoo indi sa jur fii ci àll bi boo ko indee doñet lañ koy def mooy li nga wax Fandène kenn yaratul amul benn kër boo dem nga fekk fa xar wala nag dangay yar ba nga xam ne dara desu lu dul jëriñu ñu jaar ci ginnaaw nee ko doñet loolu gestu nañ ci ñu criminaliser ko mais ba léegi mu mu amul njëriñ dañuy jàpp sa sàcc léegi yóbbu ko gendarmerie un mois deux mois mu génnaat defar la même chose moo tax nit ñi dañoo découragé ci yar te yar am na solo trop ci ci ci biir dëkk. imaginel un père de famille boo yaree sa nag ba mu kii ba mu mag nga jaay ko nga mën cee fay sa scolarité doom loolu ci développement la euh, agriculture bi nga wax aussi. ci développement ci développement la bokk toolu gerte amatu fi xale yi béyatuñu gerte dugub kan moo fi béy toolu dugub kenn daaw kenn rek laa fi gis muy béy toolu dugub fii mooy toobaa ngañ biram ci joor toolu gerte yi aussi dañ koy compter kon nañu delloosi ci

pare pour jàppale la ci mouvement bi nga lancé tey encore une fois de plus maa ngi gërëm yëpp duma ma ci wax parce que wax nga lépp bu ñu lu ma ci teg rek ay répétition lay doon wax nga lépp li ñu waroon wax yëpp pour développer Pandor tënk nga ko ci téere man préparé naa discours pour wax ci loolu mais mënatuma ko wax parce que wax nga lépp kon damay def lu dul encouragé di la gërëm ci initiative bi nga jël bul tiit bul ragal maa ngi ko wax sànq maa ngi ah, kii day Birame Diagne la ma ne ma ne la kii biographie mu ngi ci sama biir bibliothèque bi biographie Birame Diagne sa maam borom fit la woon sa maam borom jom la woon kon yow toppal ci tànkam amal fit amal jom encore une fois de plus euh, briquer, maa les lay de la santé. ci invitation bi man ma représenté réew ba nga waxee man teguma ci ma la te man ak yow dafa politique sa kiiwul chaque fois avant amoon manifestation j'étais en activité boo ma un enveloppe de soutien ma boobu mais ma ni là pourquoi chaque fois vous may ciblé chaque année c'était comme ça man ak yow ba tay ji mouvement bi am kon bu dama bëgg xamal mbooloo mi rek Malick Bricaire du tey te tey sama teewaay bi tey du parce que may responsable politique réew mi au niveau de la commune de Fandène mais yàlla moo ñu boole boobu mii na ko sax mais à travers les actions yi mu doon def moo tax ma gën koo miin di ko gërëm au passage ci loolu Bricaire maa ngi lay gërëm di la sant encore une fois de plus ñu ngi lay pousse euh, monseigneur wax na ko sànq li yàlla mbëbët ci yow li mu def ci nar def ci yow benn doomu aadama mënu ko dindi yàlla rek moo ko mën a dindi te bu yàlla ne lii di ko dooni ala kulli alit di nga ko dooni loolu loolu amoon lu may wax fii euh, ma yemale sama kàddu fii ba beneen rencontre bricaire te yaakaar naa du tey rek la Euh, gëj ci kàddu fi teew ku ci ne maa ngi lay euh, fekk fi nga toog di la jox nuyoo bi gën a sell ci nuyoo yi muy asalaamaaleykum di beral nuyoo également kilifa diine yi fi ne ak kilifa aada yi te di beral loxo aussi monsieur Bricaire mi nga xamante ne moom moo waral euh, bés bi tey Bricaire man dinaa wax ci moom tuuti. Euh, Amana ñun ñoo jàngandoo fi ci euh, école bi mais ci yoon bi mu nekk ni, ci lañu gëna minanté mu doon nit ko xamante euh, nit ku engagé la ku déterminé ku am ambition ci li muy def mo waral tey ni man buma invitation ci touru Pastef man duma def dara ludul ñew andak mom moom ca bi bii brigadier nag daanaka yow wax nga lepp ndax bu fekkente ne yow dem nga ba tuddu nga problème mu euh, bi fi ci Fandène tuddu problème euh, yoni fi fi ci Fandène ak ndox mi fi danaka euh, wax nga lepp li nga xamantene mom mo fi nek ndax comme niko doyen rek mo opposant dafa baax ci dëkk parce que bu fekkente ne yow yaa ngi nekk fii yow kese yow yaay buur di bumi dafay am yoo xamante ne dina sooxe te ñun duñ ci mën dara moo waral tey jii nag ñu ñëw taxaw fii ñëw ànd ak briquet mi ci xewam mi nga xamante ne moom dafa am ambition pour xo pour li nga xamante ne moom moo fi manqué ci biir Fandène mu ñëw trouver ci solution ak mouvement boobu di euh, union pour le développement de Fandène en daanaka wax na lépp ñun ñoo ngi lay gërëm bu baax a baax ñu ngi lay gërëm encore ñu ngi lay gërëm Bricaire, merci beaucoup et bonne continuation et du courage. Merci beaucoup, monsieur Léofi. maa ngi ñaan ñi pour ñu mën a tënk waxtaan bi léegi danañ jox kàddu gi monsieur Jean Noël Ndione bu grand parti bu gàppu